fukki ak ñaar yoo xam ne dañu ko doon tabax ak ya junniy ingénieur ak ñoo xam ne kat seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu woowee unité flottante bi Léopold Sédar Senghor moom quitté na chantier naval bu Citrium nekk ca Singapour daal di bëgg ñëw fii ci Sénégal la daanaka ci guddaayam toll na ci ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ci mètre waaye tamit mi ngi daal di am capacité stockage bu yaatu ba tax na mën na daal di jël lu ak benn million ak ñett ci baril pétrole waaye tamit liggéey bi ci unité flottante bi la nga xam ne tamit moo ko daal di perturbé mooy mbas mi nga xam ne amoon na fi ak crise bi nga xam ne moo ñeel diggante Russie ak Sénégal ci jeexital yu bon ci koom bi nga xam ne moo am ci àdduna bi naam defi bu am solo ba tax na daal gaal bi nga xam ne ñu ko daan defar mu nekk fa nga xam ne moo di COSCO ca Chine ca Singapour tamit jeexalin gi moom am na solo bu ñu sukkandikoo ci waa Petrosen tàmbali production bi nga xam ne moo ñeel ci projet pétrolier bi nga xam ne ñu ngi koy daal di xaar ci premier semestre bu atum 2024 ba tey ci fàttali tàmbali projet bi nga xam ne moom la ñu xaar ci atum 2021 dañ ko puusoon ba atum atum 2022 laataa ñuy wax ne kat ci atum 2023 lay tàmbali waaye tamit gaal bi nag moom man daal di amarré ci champ pétrolier bu Sangomar ak xootaay bi nga xam ne ci wàllum ndox lu sori lool ci ay mètre waaye production bi nag moom ma ngay dugg ay junni junni barigo ci li nga xam ne mooy pétrole saa su ne waaye tamit war nañ koo naam tàmbali le Sangomar rek moom mooy premier projet pétrolier bi nga xam ne mooy offshore ci Sénégal Petrosen moom di jaajëfalu liggéey bi nga xam ne am na ko ndax gis nañ ne jéego bu yaatu lañ ci def